diine mo mo nek lo xamantene dafa dafa dafa naqaree waxtaanee la foi elle est elle est tellement complexe tellement délicate que buñ ci wax tay xawa metti parce que fo xamné le beut bët mënu fa yegg loxo mënu fa yegg dafa gëm-gëm lo nek ci nit la. donc man je suis née dans une famille catholique à pratiquement 90% sax mën wax man sama papa ak sama yaye c'est des c'est des chrétiens ma leen di walé au passage et pratiquement toute ma famille mais dama gëm ni bu yalla défé ci yow dara wala mu wola fenn loolu do ci mën dara dal yalla moma ma euh, ci diné l'islam ci tarixa tidiane plus particulièrement ma bëgg serigne Babacar si te xaw ko sax yalla def bima décidé jël décision aussi pour convertir fofu la ma lama la ma parce que Tiwaawan lañ ma tuubalee alamin moma ma tuubal Abdou Aziz donc euh, non daal la demee mu tuddee ma soxna Zainab ñu may Nabou Khalifa